A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa radiyallahu an shaykhina wa sanadina shaykhil akbari al-kibriti al-ahmar wa sahibil khatmi al-abarri wal ghawsi al-ashhar والقطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووصيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التيجاني رضي الله عن- رضي الله عنه جعلنا الله ممن سقاه من فيض معارفه أعظم الأواني وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal xaq comme ni ñu ko baaxoo defee ci samedi bu jot seen jotaayu tariqa bi dellu si ak yéen ci chartu tariqa bi jotaay bi paase waxtaane woon nan lan mooy ponki tariqa bi maanaam arkaanul wérde bokk lan mooy ponki wérde bi ponki wérde bi waxoon nan ni ñett rek la mooy astaghfirullah ak salaatu ala nabi ak laa ilaha illa allah waxaat waxtaane woon nan détails yi nga xam ne moo ci aju waxtaane woon nan tamit bu nekk lim bi ñaata la bu nekk lim bi téeméer rek la téeméeri astaghfirullah la ak téeméeru salaatu ala nabi ak téeméeru laa ilaha illa allah li ñu bëgg a waxtaane ak yéen tey mooy shurutul wirdi mooy sharti wirde bi sart yi nga xamante ni mooy tax wird bi wér sart yooyu dinañ ci lim juróomi sart juróomi sart yi nga xam ni mënul ñàkk bu ñàkkee rek wird bi du da du wér ba ca njëkk mooy tahaaratul xadasi al akbar wal asgar mooy laab ci am toj laab ci am toj nag comme niñ la ko waxe woon ci laxdari rek moom mooy valable fii mooy nga laab ci lépp loo xamante ni day génn ci nit ci ñaari génnuwaay yi muy ci kanam ak ci ginnaaw loolu mooy am toj boo jàppee ba pare dara daal di xew xadas mooy xew-xew xadas mooy xew-xew ci luxa bi kon bu dara xewee jóge ci kanam wala mu jóge ci ginnaaw loolu dafay yàq njàpp li te boo jàppwul werd bi du wér mënuloo werd kon tahaaratul xadas comme na nga ko jànge woon ci sa laxdari noonu rek lay valable fii muy bu jàppoo ba pare bu mu tuur ndox bu mu génne ngelaw ci ginnaaw bu mu dem toilette yii yëpp bu mu ci def njàpp la dafay toj te kon ñàkk na li ñuy wax taxaaratul xadas kon nit ki dafay laab ci laab ci am toj bu ñaareel ba mooy taxaaratul xabas mooy laab ci sobe laab ci sobe tamit nam la ko jàngale woon ci Laxdari rek mooy valable fii tamit mooy nga laab sa yére bañ a am sobe place bi ngay jullee bañ a am sobe sa yére ak place bi ngay jullee ak sa yaram tamit bañ a am sobe ñett yii bu setee wecc ci sobe li ñuy wax laaj ci am toj nit ki def na ko kon na nga jànge woon laab ci sa wàllu sharia noonu rek la valable fii tamit ci sa wàllu tariqa ñoom ñooyam benn benn lañu moo tax boroom jaami al irfaniya ni lahu shurutun ka salaati faalami tahaaratun bi ma in aw tayammumi mu ni lahu ñeel na wérde bi shurutun ay sart ka salaati comme sarti julli faalami nanga ko xam tahaaratun mooy laab bi ma in ci ndox aw tayammumin wala tiim nit ki faaw mu laab doga mën a wérd laab gi nag benn mu nekk laabu ndox wala mu nekk laabu tiim laabu tiim bi tamit li la koy permettre mooy nga am ngànt comme da nga doon amee ngànt boo bëggee julli te amoo ndox wala am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo su fekkee da ngaa ñàpp da ngaa ñàkk ndox man ngaa tiim werd su fekkente ni am nga ndox waaye da nga am blessure boo xamante ni dafa nekk ci cëri jàpp yi mënoo cee jàpp bu boobaa tamit da ngay tiim nga daal di nga tiim daal di werd kon da ngay gis ni ni laab nekke woon sart ci julli noonu la laab nekkee sart rek ci werd bi kon képp koo xamante ni dafa werd mbaa mu wazifa te ba mu koy def laabul bu booba werd ba ak wazifa ba du wér laab gi moom faw mu ànd ak yow ci commencement werd bi ba ba ngay tëj waaye saa bu fi xew-xew xewee boo xamante ne dafay yàq njàpp bu boobaa werd ba dootul wér wala bu dee wazifa bi tamit wazifa ba dootul wér kon képp koo xamante ni ci werdam dafa am dafa am sobe moom dafa fekk moom dafa nekkaale ak sobe moo xam sobe sa dafa nekk ci yaramam wala sobe sa dafa nekk ci yéreem wala sobe sa dafa nekk ci place bu muy julleem werd ba yàqu na werd ba dootul wér te da koy war nag moom mu baamu ko mu baamu mu baamu werd ba moo xam fii nag moo gën a dëgër tuuti ci julli ndax moo xam da nga koo fàtte sobe da nga koo fàtte wala moo xam yaa ko tey wala moo xam da nga koo réere woon lu ci mën a xew da nga koy baamu waaye nag bu fekkente ni nit ki daf koo tay wer daale sobe ah loolu nag mën na koo dugal ci am merum yàlla mën na koo dugal nag ci fowe werd bi loolu musiba dëgg la kon su fekkee da ko fàtte moom na ko na bu ko fàttali ko rek na ko na ko baamu waaye su fekkente nag dafay wer daale sobe ah bu boobaa nag musiba la am na nag ñoo xamante ni ba tey dañ koy xiyaas rek ci julli koo xamante ni dafay werd werdaale sobe mu fàttali ko ca biir werd ba am nañu ni na ko yeggale na yeggale werd ba na yeggale werd bi waaye su ko àggale pare nag na ko baamu na dem dindi sobe si ba mu set mu daal di baamu werd bi xam nga bu doon jullee su fekkente ni dangaa julli waale sobe ci sa yére wala mu taq sa yaram maanaam da il faut nga xàjjale ñaari taxaara yi muy taxaaratul xadas ak taxaaratul xabas bu dekkee taxaaratul xadas moom abadan da ngay baamu waaye bu fekkee taxaaratul xabas maanaam sobe nekk ci sa yére nga julliwaale ko te ba nga koy julliwaale da nga koo fàtte nga julli ba pare fàttaliku ne lii sobe la woon moo nekk sa yére bi ngay julli bu boobaa sopp nan nga baamu nga baamu julli ga ci waxtu wi te kon comme que nañ laa sopp rek nga baamu ko ci waxtu wi kon baamu nga nekkul lu war wa kullu icaadatin fil waqti fa hiya fadilatun bépp luñ lay digal nga baamu ko ca waxtu wa rek jàppal ni dañ koo gëneel la rek kon bu dee nag ci werda da ngay àggale werd bi waaye boo paree da ngay baamu su fekkente ni sobe si dafa nekk sa yére wala mu nekk sa yaram wala mu nekk ci place bi ngay jullee mais bu dee nag sobe si am toj la moom bu boobaa werd wa da nga koy daal di dagg su fekkente ni nag dafay werd fàttaliku ko ba werd ba ginnaaw ba mu werdee ba pare war na nag kon fal waajib alayhi moom mooy mu iaada werd ba kon foofu wute na tuuti ak julli booy xiyaas ndax bu doon jullee du nekk iaada bi maanaam baamu julli gi du nekk lu war waaye dafay nekk lu ñu sopp kon dindi sobee dafa war moo tax min xadasin aw xabasin kamastabaan min jasadin sawbin kama min al makan faw daal nga laab ci sobee ak laab ci xadas mooy am toj ci sa ak tamit laab ci sa yére mooy laabul xabas ak ci sa yaram ak place bi ngay jullee kon ñaari yooyu mooy sart yi nga xamante ni moo jiitu muy tahaaratul xadasi ak tahaaratul xabasi ñetteelu sart ba ci sart yi tax wér da wér mooy sitrul awra mooy muur sa awra muur awra nag ci wér de comme nanga ko doon muure ci julli rek lañ koy lañ ko lañ ko sartal bu dee ci jullee awray góor ak awray jigéen bokkuñu awray góor mi ngi commencé ci jumbu xam ba ci bati oomam yii lu ci feeñ muy julli julli ga dafa yàqu kon bari na góor ñoo xamante ne ay léeg la ñuy julli sol ay kilot te te oom yi dañ ko war a muuraale loolu lu jar a bàyyi xel la dañ ko war a muuraale beneen tamit sib na nit ki di julli ginnaawam di feeñ ginnaaw muuru ko muy góor góor nag moo tax may wax bu dee awray góor kon awray góor foofu la tàmbalee mooy bëti oomam ba kii jumbu xam ba ci bëti oomam bu dee awray jigéen dafa war a muur léppam ba mu des kanamam ak ñaari loxoom ñaari tenqam kon suy werd dafay muur ay cëram waaye doo sol sa body ak sa sab zip toog di werd booy werd da ngay sol yére yu yiw yére yoo xamante ni man nga koo jullee nga daal di koy werde kon muur awra muur awra dafa nekk sart ci werd bi ci góor ak ju ak ak jigéen ku ko deful maanaam ku werd te ba mu werd awraam dafa muureeku moo xam jigéen boo xam ne da doon werd te muurul boppam wala góor goo xam ne da doon werd solul mbubb bu boobaa nag day baamu werd ba moo xam ba mu koy def da ko fàtte woon wala moo ko teyoon lu dul nag dafa nekk koo xam ne dafa lot par exemple nit ki bu fekkonte ni dafa ne ci àll bi te yorul par exemple jigéen mbubbam la sol maanaam yéreem la sol ak lu mu woddoo amul lenn lu mu muuroo bu boobaa mën na werd ci lu dul mu muur ay cëram ndax amu ko mënu ko dafa lottu ci muur ko dafa lottu ci muur ko moo tax borom jaamia ba tey di wax ni wa niyatun inda shuruci tajibu wa sitru lil awrati mimma yutlabu illa li cudrin fal jawaabu yuqalu wal wuscu shartun indahum la yujhalu kon fàww nga muur sa awra muur awra ci la bokk mooy mooy ñetteelu shart bi moo xam góor la moo xam jigéen la comme ci mën a doon da ngay muur sa awra bala ngay werd ñeenteelu sart bi mooy nga noppi bañ di wax as sukuut loolu mooy nga bàyyi wax boo commencé werd mi ci ci commencement werd bi ba ba ngay noppi nga bañ cee wax waaw wax ju bari ku ko def ci werd bi dafay yàq werd wa nutqu mamnuun li gayri cudrin wal afwu fi nusuusi jaali nadri wa man li walidayhi qad ajaaba fala xilaafa annahu asaaba xanaa rek ñenn ñi nga xamante ni sette nañ leen ci nga mën ngaa wax ak ñoom wax ji nag tamit dañuy wax bañ bañ wax ju bari comme wax ju néew comme ku fëgg nga ni ko entré loolu yàqul werd loolu yàqul werd bi kon li gën nag soo dee werd nga nekk foo xamante ni nit ñi duñ la fay fekk lu bari wala boog di nga nekk foo xamante ni di nga mën a mucc ci ay wax di nga mën a mucc ci ay wax wax yooyu nag am na ñun ci sette maanaam ñoo xamante ni bu ñëwee di wax ak yow mën ngaa wax ak ñoom ba keroog ñuy pare seeni wax ku demee ni kii sa ñaari wayjur ñaari wayjur bu ñu ñëwee di wax ak yow moo xam da ngay werd bu boobaa da ngay wax ak ñoom ba keroog la ñuy wax jeex muy sa papa wala sa yaay ñoom ñaar boo ci dee werd kenn di ci wax ak yow da ngay waxtaan da ngay wax ak ñoom. ba kero seen faratay wax di jeex waaw bala ñuy wax jeex boobu moom amul dayoo da ngay wax ak ñoom ba kero la ñuy wax di jeex ndax loolu dañuy wax ni dafa bokk ci liñ naan birrul waalidayni te Seydina Cheikh dafa dafay insister ci point boobu lu lu lu bari lool nag nee na man lam yabarra ci jawahirul maani man lam yabarra bihima laa yatayassaru lahu suluku hadihi tariqa فمن صدر منه عقوق لهما بعد أن دخل فيها قطعه ذلك عنها lu am solo nga ni ñu bari bàyyi ci xel bu baax nee na képp koo xamante ni dafa baaxul jëmale maanaam baax jëmale mooy respecté sa ñaari waajur man lam yabarra bihima laa yatayassaru lahu suluku hadihi tariqa mu ni kooku daal jaaduwul muy dugg ci suñu tariqa bi koo xamante ni respecté wul ñaari waajuram mu ni faman sadara minhu uququn képp koo xamante ni mooy sa ñaari waajur yaa ngi koy def ginnaaw ba nga duggee ci tariqa bi xamal ni loolu dafa lay dog ci tariqa bi an daxala fihima fiiha qataahu dhalika anha loo maanaam mooy ñaari waajur googu daf koy dog ci tariqa bi kon lu point bu danger la mooy mooy sa ñaari waajur moo tax tariqa bi ay jikko yu rafet rek la lay digal ak yoo xamante ni di ci insister ak yow lu demee ni ki topp sa ñaari waajur waaye nag topp ñaari waajur ku nekk xam nañ dafa am fu mu tënkee maanaam saa buñ la dee topp loo yàlla saa buñ la digalul loo xamante ni mooy yàlla nekku ci waaye nag saa boo xamante ni ñaari waajur yi lii ñu lay digal nag nekk dafa nekk ci loo xamante ni mooy yàlla la wala tere ak jaamu fala tutihuma loolu doo leen topp wa saahibhuma fi dunia maarufan comme na ko alquran waxe na nga ànd ak ñoom rek ci lépp loo xamante ni mbiru àdduna la da nga koo war a respecté te ak ñoom nga respecté te ak ñoom loolu topp leen ci waaye nag ah bu jëmee nag ci loo xamante ni dafay dellu ci mooy yàlla laa bu boobaa doo leen ca doo leen ca topp doo leen ca topp mukk kon baax jëmale ci ñaari waajur farata la lool farata la ci képp koo xamante ni taalibe Seydina Cheikh nga ndax ñàkka respecté sa ñaari waajur mën na dog nit ci tariqa bi mën na dog nit ci tariqa bi ndax dafa bokk ci ponk yi nga xamante ni Seydina Cheikh daf ko bàyyi woon xel lool